Euh, nous, avons Sylvain Boyer ànd et le ministre yi Bassirou indi Batahel bi nga président Benno Bokk Yaakaar ko jox ñu war len ko aglé bi lañ ci wax responsable militant militante ak sympathisant yépp ñi nga xam ni jàppale woon nañu coalition bi wax leen ni que jàppoo ànd liggéey pour li nga xam ni mi ngi suñu kanam mooy élection législative mais surtout wax ni loolu dañu ko war def parce que loolu moo am solo fi mu wara faté fàtte élection locale yi te ak liñu dégg am nañ ci yaakaar dañoo ñëpp presque d'accord nañu ni dañoo wara and ànd liggéey pour gagner élection législative yaakaar naa loolu mo ëpp solo ci waxtaan bi mom lañu ñu waxante fii ci fukki fan yi ñom ñëpp jaar nañu ñu waxtaan ak responsable yi am na ñoo xam war nañu waxtaan ak ñoom ñii dañoo tukki woon ñii dañoo jàppoon moo tax jotuñu waxtaan ak ñoom mais am nañu yaakaar ni ñoom ñëpp euh, dinañu ñëw ñu waxtaan ak ñoom mais am nañu yaakaar parce que gis nañu mën naa wax quatre vingt pour cent ci responsable bi. ñi ñu dajal fii yëpp d'accord nañu pour ànd liggéey am na ñoo xam ne jotuñu leen gis moo xam dañoo feebar moo xam dañoo tukki mais. jël nañu rendez-vous ak ñoom te xam naa ni ci fan yu néew dinañu ak ñoom dinañu waxtaan ak ñoom te lu ci nekk di ngeen ko dégg incha allah. fi mu ne nii élection locale la woon ñëpp wax nañu ni élection locale la woon mais nee nañu léegi ñii élection nationale donc am nañu bare ñoo xam ni demoon nañu élection ci ci liste bëggoon wane seen bopp bëggoon wane seen doole ñu ci bare jaar nañ ci man mii jaar naa ci 2009 donc xam naa ko xam naa lan la mais. élection législative bu jotee dañu xam ni ci mbalk bi la ñu war a sotti ñun ñëpp donc euh, euh, gëm naa ni foofu amul amatul benn problème ci li ñu dégg ak li ñu gis.